mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay mais euh, Quench du ñu terminer ak yow fan yi gis nga li nga te moom mooy actualité Balla Gaye Boy Niang nan gisee combat boobu ak ñoom ñaar seen sortie yi fan yi ah, bu neex fa dëgg yàlla bu neex la combat bu neex neex bu neex fa dëgg yàlla combat bu neex la neex na dëgg yàlla carrément kañ. seen face à face bi passé ñu ne Balla Gaye dafa jënd glace daan def moom la Boy Niang def nan nga gisee nan nga gisee loolu. non bala Gaye li mu mu war a def rek la def. parce que boo tasee xale mu toll si jox yow maanaam amatoo looy prouvé si làmb Balla Gaye amatul lu muy prouvé si làmb non non Balla Gaye seul mbër moom moo fi doon moo fi def sept de carrière doon roi des arènes waa parce que tey boo xoolee 2005 la dugg si làmb 2012 mi doon roi des arènes loolu ndimbalu yàlla la de du ak mën a du ak ndaanaan du dara ndimbalu yàlla la mhm. comprendre nga mu teg la fi bëre fee ñu fi kenn mosul bëre moom ñi mu bëreel ñi nga daanax ñi mu daan boo leen génne woon ci làmb làmb du amati ñun ñoo fiy des hmm. ñun booy ñoo fiy des déggoo li ma ñii mu bëreel ñii nga daan ah ñii mu daan bu ñu leen dindi woon ci làmb ñun ñi ñoo fiy des suñu génération ñoo fi des parce que loolu la yàlla dogal si moom nit nag dañ nan lapin loo ko bañ-bañ nangul ko ak mën a bëree man Balla Gaye bëree moom rek moo ne sama bopp hmm. déggoo ma de bu ma sañoon amax moom ab takkusaan sama reef la loolu suma reef la bu ma sañoon damay bëri ak moom mais dafa na la yàlla dimbali nag teral naka si làmba moom Modou Lo li leen yàlla defal si làmba ah du mën a yomb na mais loolu ndimbalu yàlla dëgg la comprendre dafa am sport dafa am loo gis rek da ngay gis nit am si sens Modou Lo ñëpp dañ ne woon dafa tuuti mënul doon roi des arènes ren dana ba doon roi des arènes nii nii sax bu ma loon moom damay bàyyi continuer bàyyi waale moom sax coow li gën a nan lay de yow nekk si biir punkal ñëpp ëpp la ñëpp ñoo la ëpp ngay raam di raam di raam dina ko doon du ko doon mënul màgg dina na am du màgg nga reyante ba teeruwaa bi nii non damay dem ba géej nag fa cubaar ak bàyyi la ne damay utiwaat beneen ab roi comprendre nga mais moo amaa nag war na war na gaaw parce que combat bu adduna soole la ah, waa loolu du si dara mais gars yi Modou Lo amaa lañ gën a yàkkamti waaw parce que Modou Lo nee moom moo préféré pour may may kii sens moom moo préféré pour bëree Ama dana woon bu doonee roi des arènes xale yi lay bëreen ab génération kon lu mu métti métti bëri nañu mbapat mu daan Ama arène Ama naka même boo yoroon ab yet dem ba màgget yorog yet dinaa fukka yet bi bëree yow bu ma ko sama dee leere woon àjjana ma tey tey mën naa wuy comprendre nga kon combat boobu war na gaaw taxaw quoi man moom billaahi war na gaaw taxaw. mais le fait que déggoo la Balla moo gën a neex daan mu insisté waat ci insisté waat ci loolu noonu nan ga koy waaw parce que xam lu tax boo gisee ñu naan Balla Gaye moo gën a neexe daan boo ko waxee ab fan saam day mer gis nga ab bërekat bërekat maanaam mën na bëre ba daan boppam comprendre maanaam di nga gis mbër moo xam ne day bëre ba daanu si ko action comprendre nga ba moom si boppam wala mu daan nit sax te du xam nu mu ko daanee day ñëwaat ba toog këram nii maanaam loolu koo xam ne day foo ku bañu mu baatee loolu mbër moomu moom moom lay dal quoi maanaam da ngay si biir action moo tax mbër mu mag champion bu ñu lay daan jël bu rëy lay doon parce que loo jàpp da nga naan lii ma jàpp ni maa moom loo jàpp doo def ndànk da ci ciy xaaru ba dee léegi nag bu ñu la siy daan jël bu lay doon uh-huh. booy ñaa nag mbër la carrément kenn dootu ko laam-laame uh-huh. technique na am na expérience xam na li muy def mais mu ngi tesee koo xam ne bés bii mënu ko dépassé moo tax mun a teg ku bëree yëkkini bëree Balla Gaye bëree Bombardier bëree Tyson bëree Baboy non sa waay bëree Boy Niang kii Tapha Tine te Tapha Tine naa Boy Niang bëree Modou kon kooku bés bés si boppam non bés bii mën ko mën ko dépassé moom la Yékini waxoon Balla Gaye di waaye dee naka bés bi fii laa ko teg xam yii mu jaar a jaar la Yékini ñu koy nuyu te di ko ñaanal ak wér tamit moom la roi des bàyyi ma nuyu Yékini waay waaw ma nuyu Yékini la roi des arènes le roi des la ko loolu lañ waaw kenn roi ab roi dootul mel ni moom si làmb comprendre nga roi dootul mel ni moom si làmb kon que ñu ngi koy ñaanal wér gudd fan yàlla suturaal ko defal ko jàmm bàyyi ko si njabootam bàyyi ko si làmb mais lenn laa koy ñaan nay ñëw si làmb loolu kese laa koy ñaan bu ma amee lu ma koy ñaan moom ak na ñuy ñëw parce que dañu am ay soppe yoo xam ne ñoom moom dañ lañ bëgg maanaam Yékini dugg seen a tey tous wàcce sax ñi ñi xam ne ne Yékini la roi des arènes mu ngi nii mais roi des arènes boo xam ne bu génnee rek siti ñoo dem seeti ko loolu moom dama ko koy ñaan nay ñëw si làmb ji moom mooy roi bi nga xam ne kenn dootu ko naataabale te roi bu laa mel ni moom fii 15 ans de carrière daan woo noo loolu yombul de. ah làmb la. naa mala la mën nañ dumante ñoom ñaar ñëpp booy booy ñaa mën na duma Balla Gaye daan ka Balla Gaye mën na duma booy ñaa daan ka seen état physique ba ñii dañuy juwaate état physique ah yaram comprendre nga Balla Gaye li waroon si làmb yëpp def na ko booy ñaa moo toll si di yéeg comprendre nga moom moo gën a soxle kon lu ko état physique moom la war a gën a jaral ka Balla Gaye Balla Gaye tamit dana benn mbër dootu ko yeb du moom la wax benn mbër dootuma yeb waaw naka confirmé loolu moo siy waaj de. li Papa Sagueye wax nan nga ko déggee. lu mu Serigne Ndiaye. lu mu ñu boole woon Serigne Ndiaye. Balla Gaye 2 Eumeu Sène Bombardier Lac de Guiers 2 ci benn taakusaan Serigne Ndiaye daal leen benn jël bu bokkut est ce que ñoom yow. waaw xam nga kuy nan lañ koy waxatee kuy daax kéwal da nga koy daax mu jëm sa kër. loolu la moom tey bu fekkoon ne Serigne Ndiaye nekkul woon si moom da nga dégg mu boole si kii Gris boole nag si. waaw boole na si Gris Bordeaux boole na si Lac Rose non dama lay laaj rek ah ah doomam la tamit c'est normal man boo ma laajoon ku daax a bëre làmba ji waa bari ñi lay jël boo ma laajoon ku daax a bëre si làmba ji waa lamsaar lay jël déggoo de parce que foofu laa bokk noonu la demee nit ku ne fi nga bokk foofu ngay fexe mu jox déggoo ma de. man boo ma laajoon gën kër a gën a neex si àdduna gën kër ban dëkkaa gën a neex man a Sénégal si biir senegal ban dëkk moo gën a neex man a Dakar si biir Dakar ban dëkk gën a neex man a département de Rufisque si biir département de Rufisque ban dëkkaa gën a neex man a si biir Bargny ban dëkk koñ moo gën a neex man a koñ yëpp a parce que suma ma dëkk fépp a kese du leneen fi may terminer ak yow muy sa xarit mhm. euh, Sa Thiès Reug sa kuréel Sa Thiès na ko wénche bañ ko ñoom ñaar moom ay doomu nday lañ loolu àdduna ñëpp xam nañ ko. waaw loolu dafa leer combat Sa Thiès Reug Reug. waaw combat la combat boobu moom gën a neex si combat bu mos a am. te ku ne kii moom man rek danga far. te ñaari mbëri gis naa ne ñoom ñaar kenn respecté si sa morom. Ah, waaw gis naa ne kenn respecté si sa morom. waaye ku si sa morom di daan. Mm-hmm. da daan ba nga dem toog di seetaan tale nii nga ne waa man diw ndeke nii la ma daane. li ñu xasaasoo daal bu ñu ko teggiwul di nga gis combat bu daax si année bi te ñaar ñooyu dañ leen waroon a yokkal seen ak fay nag. waaw. mosuñu monté combat bu mel nii. kon moo da mën nañu moo dàq ci moo daax bu ñu mos a monté si àddina moo daax Modou Lo Balla Gaye. moom mooy meilleur combat de l'année. moo xanaa ma ne moo daax Modou Lo Balla Gaye. ñu ngi koy soor a monté euh, xam nga Balla Gaye dañu doon wax moo ëpp Modou Lo doore moo ko sut mais ñaar ñi déggoo li ma la li bët di gis ñoo tolloo lépp te di nga gis état forme yu macha allah macha allah. ëppante wu ñu doole de. man de gisuma ne ëppante nañ doole. saake su ma xarit la loolu daw ma xa. Reug Reug su la loolu daw ma xa. mais yow mais yow nga dëgg kii lébu la kii sa xarit. déggoo kii su ma la Reug Reug su ma deret la saake su ma la est-ce que comprendre nga li ma la. saake buñ ko fayee ab 60 nangam million. ma ne bul jël Reug Reug dama koy xeeñ teraangaam Reug ñu fay ko cinquante nangam million wala soixante nangam million ma ne ko bugg a jël dama koy loolu manuma kamay comprendre nga ñoom daal seen seen làmb non seen làmb la déggoo li ma la wax waaw saa kee su suma xarit la damay bëgg a bëree Balla Gaye eh, déggoo neutre def parce que loolu moom war parce que man bi may xaritoo Sa Thiès xalaatu moon ne jamono dina doo ba mu bëree rek rek comprendre Euh, bi may xaritoo saakees saakees xalaatul na jamono dina doo ba mu bëree rek rek léegi ñu tase benn tàkkusaan rek ma ruccaku non loolu yëfu naa fi xala sax saakees suma xarit la dara du ko dindi moom bu dañul si moom dañ si man moom bu ko dindiwul moom saakees du dañ si man rek rek suma mbokk la suma deret la mbokk gi mënu ko dindi mais ni ñu mel bu ko dindee moom mu dañ bu ko dindiwul du dañ man képp ku may jàppanteel déggoo li ma la buy ñaaw si yow lay ñaaw mais pas coince ku si daan baax na c'est le meilleur gagne ku daan baax na waaw. Uh-huh. Mhm. ñoom ñaar kan moo gisuma ku si dàq bëre. billaahi gisuma parce que dañ ñu sax et si lu ah. Sa Thiès nee na Sa Thiès dafa ëppal da moom ay day rambax. dafa rambax ñooñu boo leen doon tigaat xam nan ngay wax. kon ni ñu doon tigaat lee Youssou Ndour ah Thione Seck. Mhm. moo nekk ni bokkuñu lu ñuy lii bokkuñu façon de bëre ñii bokkuñu façon de way. koo dem si côté nga ne kii moo man koo teg coupé na kii man boo coupé tegaat keneen ki na kalee man. kan la ci bëreem gën a wóor. gisuma si ay bëre bu wóor a bëre bu lii ah. waaw làmb la. mais li ñu bi muy def moo ëpp avantage que. loolu dëgg la si mooy nawetaanu mbër. Ah. mais dafa la arène ak mbapat du benn comprendre nga man bëri naa mbapat da ngay xool rek rek yi muy daan si mbapat boo xoolee ba tey daanu ko arène dafa am benn waaye bu ñu faawoon yëkki man Yékini dama koy suivre mu ne que ni nga doon bëre mbapat laa bëgg a gis Yékini naka doo ko gis bu fekkee moom ngay xaar doo ko gis comprendre parce que bëre mbapat bokkul a bëre arène daanaka nag mooy tax mbër ñox si làmba maanaam xam ne du faale dara kuy tegle exemple benn te guddi nga bëri si cinquante combat benn combat du la jaaxal foofu la ñuy waxee mais loolu day fekk nga daax a bëri nit ki ëpp ko doole ëpp ko sañ-sañ daax a ko mais ñaar ñi ëppalante wuñu dara du ko du bëre du doole. du mbooloo tamit ñoom ñaar parce que ñoo am mbooloo. déggoo li ma wax de Fatima Dia. mënoo leen tikaare si bëre dañ bokkul xeetu bëre. boo na rëg rëg day mbot saa kees day mbot. boo na rëg rëg day dañ koy wër ndoom ba mu daan saa dañ koy wër ndoom ba mu daan. boo na rëg rëg dañuy jël tànkaam duñ ko daan saa kees dañuy jël tànkaam duñ ko daan est nga li ma wax. dañu tolloo bëre déggoo ku ne kii moo man da nga far. ci far nga ko teg mais tegoo ko si analyse u moo tax ma ne leen ñii dañ leen war a dolli la xaalis waaw combat bu bu mel nii mosuma ko gis waaw la yaay yaay mbër gal yaay